mais Fadel ana bi Binta Faye. ma nga ma nga course ba. mais daaw moom bésu gàmm gi yaa ko yóbbu. ma maa ngi lay ziar maa ngi nuyu site internet yëpp. di ñaan yàlla sunu borom. gàmm gii ngeen ñëw. ngir bëgg ñi nekk bitim réew ak ñi gàmm siwul mën di ko dund. yàlla na ci yàlla dëgg. ba site bu nekk balaa déwén yàlla def ko tele yàlla gën leen a yëkkati yéen ñëpp. ci barke Seydina Mouhamed. oustaz màggal guddik Seydina Mouhamed ban dayo la am parce que ñu ci bari dama dégg ñenn ñi naan ay gàmm bédaal ak baaxul la waroon na ko def yooyu en tant que borom xam-xam yow. dañuy wax ni guddig laylatul xadri moo gën ci guddi yi ñu ne guddi gi Seyduna Muhammad juddoo moo gën ci guddi yi boroom xam-xam yi wax ni nañ def jàngat budul woon ak Seyduna Muhammad laylatul xadri du am kon ki tax nga xew koo koy sa patron. guddi gi gën ci guddi yi mooy guddi gi Seydina Muhammad juddoo sallallahu alayhi wa sallam bu doon jamono am na am na maanaam da naan jamono bii moo daq jamono bii jamono bii nu toll moo daq ci jamono jamono bii nu toll ci la Seydina Muhammad gane woon àddina ci la jamono leeree woon ci la yàlla yokke woon leeraayu jant bi ci la àdduna puukare woo ci la nit ñi jot kado bi gën ci ñoom te mooy yonent bi laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi maa anittum harisun aleykum bil muminina raufun rahim yàlla daal bi mu ñu bëggee texeloo dafa fexe ba yónni ki gën ci ñun mu yónent bi mu ñëw nekk nit comme ñun waaye mu am lu muy yëg ci yàlla lu kenn yëgul moom yónent bi waxuma la doon gi mu doon suñu yonent waaye moom rek moo am ci yonent yi koo xam ni yàlla def ni su ngeen bëggee ma bëgg leen bëgg leen ko wax bi yàlla néewul su ngeen ma bëggee man yàlla ma bëgg leen de déedéet dañu ku bëgg man yàlla ma bëgg la bëggal Seydina Muhammad te yonent bi boo ko bëggee da ngay am sécurité dangay am barke sa dund dafay neex doo am stress bi day faj feebar xam nga lu Alaaji Abdu waxoon su ma feebaree man Abdu hôpital du ma faj sunguf duma faj ñu ne ko Alaaji Abdu lay faj mu ne ngeen woo kuy tagg yonent bi mu toog ci sama wet dama taggal Seydina Muhammad ma di ko dégg sama xol di féex kon ki gën ci ñun mooy yonent bi guddi gi gën ci guddi yi mooy guddi gi mu gënee àddina te mooy guddi gii ñu nekk maa ngi ñaan li ciy wàcc ci ay leer lépp yàlla na ko yàlla wàccee ci réew mi ci daraja Seydina Muhammad jërëjëf loolu leen oustaz Abdou Aziz li muy def woo jaam yàlla yi li ci jiitu mooy euh, gis na ni muy def social ay niir doole jóge ci santaane ñëw mu leen di jox ay ceeb ak ay diwlin ngir jëm yàlla doytul mu togg ay ñam jagle ko ci guddi gën ci guddi yi muy guddi Seydina Muhammad nu mbaax mel mbaax ci xol lay nekk joxe xol moo koy def nit ëpp na ko alal téeméeri yoon ba mën koo jënd waaye li mu attan attanu joxe xol la de faadal joxe xol moo koy def bërki démb damaa génn di defi émission gis rang bi rang mu leer na ma ñii ñëpp lañu war a def ci gàmm gi ci moom mii la ko yàlla wékk parce que yàlla bu lay jox wërsëg da koy jaarale ci keneen da nga wax dafay jël sa wërsëg jox ko faadal mu war a jaar ci man dem ci Médoune ba dem ci Lamine loolu li koy def mooy yàlla mooy jël wërsëg jaarale ko ci nit ñi doon ñëw seen wërsëg la ñuy jël si waaye ci loxo yàlla ci loxo Abdoul Aziz la ko yàlla jaarale mu koy defee xol am ci mbégte di joxe di bég dama ko wax barki démb ni ko dafa bokk ci qualité yonent bi yamun nu bi laa mën nin moom dalay jox te du la ñaax du la ni bu fi ñëwaat du la ni sonal nga ma moom yonent bi Abdoul Aziz bari na ñoo xam ne seen gàmm ci moom la ko yàlla wéer moo tax da koy gën a mën rek amul kuy def lu baax di torox sa sa secret ba ñëpp bëgg la macha allah comme secret secret Médoune ak secret Lamine du yéen a ngi nii site yëpp yéen a leen féete kaw ñoo ngeen baatare site yëpp mais sant yàlla yàlla mooy def mooy jël la ko neex def ko fa ko neex man boo gisee amul benn sit internet buy bëgg a def ak man interview may bañ xam nga lu tax mooy ñun fu ñu àgg yéen yéen ñu fa àggale ñun fu ñu toll yiin yéen ñu fa àggale am na koo xam ne buy tëdd day dugg YouTube di déglu sama waxtaan ba 6 heures du bu site amul du ko def. leneen li ma yokk mooy mbaa xam nga affinité bi am diggante Pape Cheikh reeta di reetaalu bi ñu bëri ñu ngi ciy jàngee diine parce que léeg-léeg wax ci loo xam ne nit bu fekkee day dugg ci duus nit bu fekkee daa war a tëdd ak soxnaam yi muy léebu yooyu yëpp xam nga dafay reetaalu mais xam-xam la boo xam ne ñaa ngi ciy jëlee xam-xam waa xam nga jàng jàngale ci jamono dafa war a maaseeg jamono ndaw ñuy déglu waaraate il faut nga wàccee niveau bi ba tolloog ñoom loolooy tax ñu dégg la boo bëggee jël niveau bi aj ko ca kaw gars yi duñ la dégg da koy wàccee ba tolloog ñoom am na loo xam nag yàllaa koy def mooy jël nit ñi ubbi seen xol yi dugal la ci tëj ko te kenn mënu ko ubbi nag coow lay bari mais ubbi xolu nit génnee ci nit yàlla rek ko ngeen boo waree tëdd ak sa soxna donte jaamu yàlla la tey faadal ci guddik Seydina Muhammad lañ nekk guddik yo eh, oh, guddi yonent bi lañ nekk jàngale la loolu jàngale la waa léegi bàyyi leen ba gàmmu gi jàll nga ñëw ma wax ci loolu Pape Cheikh da koy jàng koy dégg te doon bëgg da koy ak li ñu gisee diggante mu teg tijaan muy xasante yoo xam ne diine soxlaw ko tey mag ñi santoon diine. bàyyil xel ni as murit dafa am. as tiijaan am. ma riirandoo am. doo bëgg alaaji Malick ci sa biir xol te muy dëgg ngay contre Serigne Touba doo bëgg Serigne Touba te muy dëgg ci yow ngay contre alaaji Malick amul. koo gis mu jàpp lu ñaaw ci xolam wala màggal bi ampleur bi mu am mu di ko déranger wala gàmmu Tiwaawan ampleur bi mu am mu koy déranger bokkul ci ñaari kër yi fenn. waaye ku nangu li yàlla dogal danga xam ne alaaji Malick élément yonent bi la Cheikhul Khadim élément yonent bi la Bou Kounta élément yonent bi la l'islam moo am ndam barki démb lañ jóge Touba Touba mokk rumbux ci lislaam ak diine tey ñu ñëw sam samedi Kaolack lañ jëm lii mooy réew mi ku ci bokkul nag noppil samaam wootewul amul gàmm amul màggal amul bernde kenn yaakaaru la kenn rangul sa maam nel pat yoroo xaalis yoroo dara mais nel pat neel patt nopp nekk ci jàmm rek. moo ma njëkk a yóbbu ci Seydina Muhammad te booba bëgg naa dem ci yonent bi lool ndax Seydi Hadj Malick bi mu demagul ci ma ci yonent bi daf daan faral di waxantu mel ni kuy jabbutu moom Maodo naan fa kayfa yatibul umru in dumta sama dund nan lay neexee te demaguma Madina booba bëgg naa dem te mënagula dem ba mu demee it tagg na yonent bi mhm. nee na ko walaw laahu daa sabilu mhm. nee na bi ma demee ma diina ka ma fa fekk bu dul woon ak moom àddina yàqu mhm. waaye man itam bi may waxtaanee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te demaguma fa amoon naa mébétu dem fa waaye ka tax ma dem fa nag aw ma fayam muy Abdul Aziz maa ngi ñaan yàlla bu ko kenn ëppale ci bi na ko yàlla gën a saxalal teraanga gën koo barkeel gën koo dëgëral ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu nee gàmmu ni Tiwaawan buñ nee gàmmu xel yi dem ci Maodo naka la ko Maodo daan defe ak bu daan jub lan lay yëg. daf ko tàmbali woon mokk ñuy wax maam rawaan ngom ca Paal booba buur bu ñu daan gàmmu Seydi Hadji Malick dafay jàng téere bi xaaju kaw bi maam rawaan ngom jàng xaaju suuf. kaamil bi jeex ñu jàng xatmu bi ñaan ba déwén waaye comme lu yàlla dugal barke tànki kanam lay am looloo waral mbir mi di màgg di màgg di màgg di màgg ba am tey ampleur bii mu am nga xam ni boo ñëwee Tiwaawoon la waykatu arab ba waxoon ne Tiwaawoonu fiiha al yumnu lil mutayaamini Tiwaawoon dëkku leer la dëkku barke la Cheikh Seydil Hadji Malick nekk fi di jàngale ka woote ba tey yàlla nangul ko li mu ko nangul ba tey boo nee Tiwaawan xel yëpp dem ci Alaaji Malick te pourtant Alaaji Malick doxandeem la ci dëkk bi juddoowu fi waaye ñëw na ci dëkk bi nangu dëkk bi. luy maye loolu. wéetal sa borom. nangoo jaamu yàlla. wéet ak sa borom nangoo jaamu yàlla ba yàlla may la ci boppam lu mayul kenn moo tax mag ñi damay faral di wax ni dëkk yi ñu nekk dañ fa lawraate ay turu yàlla yoo xam ni kenn mënul yàq dëkk ba. su màggalu Touba jotee da ngay gis oto yi tegaloo. Mhm. Tiwaawan noonu Kawlax noonu Njaasaan noonu feneen ak feneen noonu. leeru nitu yàlla ya fa nekk moom la ñuy moom la ñuy dab si dabu si. kon la ko sañcoon dëgg la. jugu fa te mooy diine ak lislaam ak jàng alxuraan mag ñi dañ daan dundee lu lew daan jaamu yàlla mhm. seen seen seen lorit ya daan génn ci seen gémmiñ yi nekk ay loritu leer ay loritu barke ñu dem ba am ijaaba mag mu am barke loo laal ci moom am barke boo gisee rang bu gudd bii ñuy rang sëñ Babacar di ko rang alaaji Malick di ko rang alaaji Abdou ñi fiy ñëw xam na ni seeni aajo yàlla rus nañu fi tëdd mais lu waral nga daan dégg nga ni sëñ parce que bind di la wala muy xaatim parce que yàlla yàlla dina dimbali nit ba bu la bëggee may xaalis du la jox liquide day bind sec rek jox la bu këyit yëpp yemoon sek du am boo demee ci bànk bi dagg këyitu journal jox fa kenn du jox dara waaye boo yoree sek bu baax ñu signé ko boo demee lu ca bind ñu fay la loolu mooy nitu yàlla day àgg ci jaamu yàlla foo xam ne noppam lu mu dégg yàlla barkeel ko dama lay jox misaal ci benn mag mu nekk ci réew mi ñu koy wax sëñ Fallou Mbacke sëñ Fallou dafa àggoon ci wàllu wilaaya ak cër foo xam ne moom sëñ Fallou bu nee na am yàlla def li mu bëgg xam nga luy loolu inna lillahi ibadun ida aradu arada yàlla nee na nit dana dem ba toll foo xam ne su ni ma alu ma ni ko alu xam nga mënumaa jot Macky Sall moo gën a wóor kenn mënta jot Macky Sall am na koo xam ne su ko bëggee jot da koy jot mais yow mënoo koo jëpp. mais da ngay toog fi ak Sinaab wax ak ña nekk Amérique nekk France ngeen loolu mais am na ñu may kiiraay googu. loolu nag nitu yàlla da koy am nitu yàlla day toll foo xam ni bu déggee yàlla faj bu ñaanee yàlla nangu. am na mel ni mag mu nekk ci réew mi damay wax ni man tàllal mu ñaanal ma dafa dal sama xel. Thierno Bachir Tall bu luga bi ma xam man Thierno Bachir Tall ñaanam man doy na ma àddina ak nit day toll foofu ci wàllu yàlla buur am na koo xam ne bu ñu la naroon a indil problème su wootee ñu bàyyi la loolu dafay yàgg ci àddina rambu dafa yàgg ci àddina moo tax yowmal xiyaam bu ñu dekkee yàlla yàlla dafay pine ñëpp waaw yàlla rusul Isa rusul Moussa rusul Ibrahima rusul Adama Seydina Muhammad moom day ñëw ni ko ah, waaw yàlla sama xeet wii ni ko bàyyi leen ñu dem yonent bi mooy ñaanal intervention xeetam yow mal xiyaam bu dee yàlla balleen yàlla baal leen bu dee yàlla nañ dugg àjjana yàlla ni dugg leen kon ñun sens la yonent bi nekk sunu yonent